Euh, pour génnee gaay si yoon bi waaye gis nañ ne dafa mel ni gis nañ ne ñoom génnuñ fa soo tey tamit ñu ngi ni dellu nañ foofu noon di seet fàgge te gaay waxoon na ne tey moom suñ ñëwee fekk fi gaay dañoo arrêté gaay yóbbu leen soo ñu la Gambian Talents TV man la faat Suso ak suma caméraman bi Bakary toppale ñu dem mbaadi mbaadi ngol nun tele felente Gambian Talents TV felente mbaale jang Iceman comme naata nun janna wo wigo min tamita ah, pour kab mool bondi slogan bata kam ta ko gael mambo slogan hani sain so bin felante natale jam butum tale nan jankoto pour ka jibe fo mil fo nil ibi jira hansa fe man taraja an bi no gal ya folo ko ni mo mon taraje man boje ya fe boje man boje nga mentalence tv albul no mo 사람들이랑 항상 막 아이스만은 번데스 같은 게 제가 돌도 이거 제 아파요 놈 프라이 보지 바라 감도 a 아무 보지 소에나 타는 뭐 바라 바라 소일 때 내가 나 타까 뭐 그렇다 알았어 사인 프렌드 막 아이스만 라이 나 먹고 겁는 거 해요 막 녀는 아이스만 si benn sobi Nescafé bitigi ne ne gaay ne ñu jógee fi waaye dafa mel ni moom déggul waxi na fii moom jógeewu fi ba léegi soo dafa mel ni gaay dañ ñëw xëcc ko affaire soo génne ko si a faalen no o rek o omin ya, ba nescafe biti koto sa a ya falonte alo baga sol bonde a bala baga sol bonde ka so abe londe kan dula kili pour kana ta pour ya ka adresse bi parce que ya fay non travail bon lo kam bo lo kam bo kay kon nañ ko waxe won rek ñu ngi ne fi ci ay fan ba legi borom bitik bis legi mu ngi ne nak mu ngi gene sa ne ci biti tek len tek len ben place because waxon nañ ko pour mu gene mom gene fa so ñu ngi gene sa ne pour gene def ko ben place ko defé ñu yogo ko tokal ni rek ba tay ñu Lagan stay TV ñu dem ko nga fale mi ñame hansa ala fi jël fiti jolfante banda ala ala fi fiti fewal ba ko afana mi damin ni ne ku ma dum sikenya de man Sakoundaay mi foofu kay fan sa buloo fooñu noonu moo kay comme nun lañ ko waxee rek ba léegi ñu ngi ne jël fridge am tamit génne ko si biti te lekk yaa ngi si biir fridge bi waaye lu ñoo def neexul si xol bu la dégg waaye lu ñoo def anti bala dula boyndi kam pour kana kala jikka jeeta ka boyndi naal ba jibe kam alñaay jeejele ba jee sayin masino naka moto lu tala ya siti e kana place ñu na taye pour ya boyndi sayin ka tandila ko yamin foye bola ke kan ka fe ko <clears throat> ya no ni ni mo woni mo boje ni yetara traje rek e be la lay ba bondilal andi be tamare ares la so right now gael bolo ke kante comme ni ngi ko waxe rek legi ni ngi ne jël moto bi ñu ngi taka place ba noko jël na moto bi jël na moto bi taka place ba legi wo bi ko dañ waxon ngay ne su ñëwé fekk fa gaay sa seen bagage ci fekk gënañ fa dañ ko daanal so ñu ngi ni right now fofu la nekk ni gaay ya, ñu ngi ni di jël moto bi taka na ko xara ñu ngi ñëw daanal stade daanal place mo le filalejo ya han say mata dulaki no ñato kala ya ñame ko nga fale no nyame ko ne mo mo lentata je bela dula boyna so a felante right now bala dula boyna kan kala ñaja ñame al ñaja say boyndiro ñu commencé kala sayante kay boyndiro ñu saya sai kala moo kay comme ni mu ko waxee woon ba tey ñu ngi nii des si nes bitigi nes café foofu noonu ba léegi foofu la nekk léegi gars yi ñu ngi ne staff nañ di daanal comme noonu ko gisee rek ñu ngi daanal léegi fu mu nekk ni si kaw loolu la gars yi nekk moo ko si kaw loolu la gars yi nekk ni borom bitigi borom bitig bi ñu ngi dañ ko waxoon mu génne si place am waaye génnewu fa léegi ñu ngi ne ñu ngi koo daaneel fu mu nekk ni so nañ leen dem rek ba léegi ñu seetaan Ana por. kali aja nyame hang sai bakan ne bobo ndiro la nga hang sai bobo ndiro nyame bakan no ko nga fale no nyame dak ni bola ke kan sai sa la julo sidila fo ka pare ba ne ñun saba kanam ne fu la njalul be kuntikal fo ka pare moo koy kon ñun lañ ko waxee rek bi léegi si kaw daanal boobu leen nekk ñu ngi ni daanal place bi soo ko soo rek bi nga gis ne ñu ngi daanal place bi si bi borom bitigi Nescafé bi si place a nga nekk ba léegi pare yanguñ ba léegi si foofu la ngay nekk di daanal ni Vâng. <laughs> Vâng.

mbako laccilooñi na to aɗa yaaje lara ñama kane ɗum walla bitikoñe baaba wonde kan ñaame ɗumeta affaire me ɗofuloke man ɗofulogan so ɗoɗo bitikoñum bonde kana ɗumɗo comme ɗum ko waxe won beleji wofulan neka finne ko ɗum neka beleji gis ngeen naka la nekk rek daanale bitigi bitigi Nescafé bu ñu leen doon wax ak ku nekk si ba léegi ñu ngi foofu noonu ñu ngi ni daanal nañ léegi comme noonu lañ ko gisee rek léegi bitig baa ngi ne daanu na ɗotin tan ñinan bitika tiyoñin tin akulo tama naskafe bitikoñin tin yatalla dula boy tan akonta ayaba bagas aba fama bolor na bala bitiko jibe kan ko ya boy ñamen ko nga fanya ñame aman aman batin sike ñade afenta la bagas sol biwa don panta bolor nga bagas dala bolor nga bagas sol dala kon bolor ko waxe borom bitik ba taxaw ni mu ngi ak mu ngi taxaw génn nañ bagage yi yëpp taxaw génn ko daana fu mu nekk ni bitig bi daanu na léegi moom ngi nekk taxaw at na xariyaan bi donc at na xariyaan neexu si xol waaye li ñoo def mbaadi ngol ko nga fale ñaami sayin fulantin mbota nanja mbota ke na as manja sayin fulantin ale surakunda mat surakunda mat se drag market johnson odo mbaloro walta ten konga falu nyami li an koy koy bondu sloka mo sonko bo sloka na to kon ni bi ni ata je yitra je e bagal arasla son bo to ten sarakunda kana ndal dem bi so na ta lepot kala bagasum ya ares e mo kay comme nan len ko waxe won rek ñu ngi ni joge nan ay sma legi ñu market jassone black market ñun wax ñun waxoon na fu ñu génnee seen bagage si yoon bi nanguñ fi ñoo génnee seen bagage yi soo ñooñu la gaay ñoo jël si ni fu mu nekk nii pour tëj seen bitig yi ñu yóbbu leen si station bi la Gambian Talents nooma xam say nga taa ñoo nga taa no problem xam nga lii bi mu starté it's not maa ñëw fii rek ma jënd balaa eh, ñëw nag fi nga waaye ma jënd fii balaa maa ñëw rek ma palansoor constat bi. waaye naaj baa ngi tànga. waaw sam place bi toog si biir waaye lu ma leen di wax mooy. parasoor bi bu ngeen ko fi defati bugatuñ ko bugatuñ ko please. dégg nga. respect respect on luwa bi. moo than five or six days. standing stop stop it. what we are doing is for you guys. it's for the interest of the nation. please yéen ngeen support and help us. exactly man ah, ok eh, lifin ok please Why? Ah, ye ale même fo ntoli yo kele ndaje nga palan soro ñi lon pour tilo damma dam tilo kilojin kana fo jam ko dan mala bara man ko kun sanga luwa no ne te dai ban aman kan ga luwa lanyin soso ni ma sa ko men ke nyanta wala ke e ko nga pala e, e, e nyin jindi nga jindi janna tul kana malla fa tul fo liya jindi ko sun malla fi diamol ndam dimba ta ame family ma that's why malla fi diamol so kalan soro nyaje mbalon da ko sa kilolam ngaje ko o ta manke fe dimya lan ka ba ntela fo a fa ñin dam ma da ma ta pala so lo pura pala so because for you, they have these people. Because Tilo, Tilo, Tilo, Tilo, Tilo, and Sama. If this thing has to continue, so I'm Because physical planning, it's all called the have a yardstick. So if they have a yardstick, so, uh, the other one was saying polo, or how many meters will be different for uh, for Fango? Correct. Because you can't allow business community, you're sitting, the sunlight is affecting their business. When rain, uh, affect that. So that's not good for this country because if, if, all, if all these people decide to close their shop, where, where is government going to get revenue? Where is government going to get revenue? At least you, you give people something

pero nyanta tara wala kono e la bidugo ko male pero yesi e so mon kana e kadu ga fundi bade al fotenti abe mu kudu men ka be senari wala ndame chance di kala ngi be bondi e bu woni ndada en soje we si pero so na kono la bidugo so la kono parce ani ko pero so la bidugo e bandala e be dunam la si wala ka wala be kiri wala nan ko fenkana bidugo da mo bunda la bunda da wala ce isa pa mo la ko molla ya bunda da ila niya da ndawol fengo fengo kola men na rom extension on e ka wala encouragement on the road so wala atina mulɓe fundi kan kaje ko tampita damen na ka murnan je momoni menen koye murtana jeele koten ge kaje ko ke samba ɓayɗi natal nge bonde a namba badda ga fale fen fen ka bo bunda a kana si do kan koten anduñi sumanna gaje koten yefangol bonde nan ko dem peron kaɗo janon peron ɗo peron ɗo lu kaɗo jamanki la peron kaɗum peron yimɓe ila ni yaɓe ɗamen peron nyanta ka ɗum wala kono an nga gaño understand non ya, aka comme ni physical plan yo comme peron ñi this compound has been uh, registered by them. it only it only it only you quarter What I'm saying is dimension on you it only quarter out dimension on you fenk. Ah, ko yale ita ita danda jande be lorin dam ko itola approve anda wana ko korra ni itola ni approve ko itola ni support anen tante you want am ni fama la korra la itola itola approve itola support be ja ya. that's what i'm saying ni yale danda ni bidigo so do mani kanjan bidigo la bunda ah. so bidigo ko kono kana obi muitaji ah. bar bidigo bunda kata banda o man satal kay bidi ko lo kan ila anta dana dame pero nyanta ka sunya wala kono e pero ngosor bidi ko tata kono pero ngol bezata le ni ni yal kono bani na say bidi ko dande pero ka ko sa ngo pero ngo bondile sa nga um, pero ngo um bondi ina e daka paran soro ki ya kamanta um pero ngo ni ya pero ngo kamentano sa paran tro o le remplacer ko ñu confusion la be kiri ko tam no fote bor kon ah enta sira ko di yemul ma fay because already this jang jambe jibamba they are all uh, structured buildings so ni ni ko wayar stick tata la definitely is going to affect this country no, what, very severely. What, what, I'm saying is, what I'm saying is, but, but it's, it's, it's, it's something but for physical planning, you know what I'm trying but to say? the same yardstick they want to continue. What I'm saying is going to affect this country. But what I'm saying, ko, even for kan dem, for even ah. wrong for am wrong, even for. Ko ka fanya. Woni Luamanta. Come on, come on. Come for ko. It fo ko jang ito ita danta dame la niya, korda niya, wala bungo niya. adanta dame wo muy taldi wo kono comme yalla ka peron yalla be peron keno jan hani wan mi tan isi peron keno jan ah. bidi ko danje bidi isi blasor ko di ah. kilo kana boye kan ba santem peron be nun dame ko da da kata way bandana mo no kande perango be nungol donga perango bonni say yo palansoro na fe ko tilole kala batande ara ngam palansoro na famu tilole say wo be lorin tilo palansoro be londa fana be lorin silole ka aka da hani say wo perango ngam bonni wala do ko mende palansoro bole ke kan hani say wo obstruction kilingole be kiri hani say mala fa nga so nimo ba kere san dat mean that o manya na kela banya na kontinela eh, amanyela container of exactly sai wo manyela janya naka free wala nanga ki ngolu so sai ente jam muy la ni yal sai be pero bondi la mital to konoto kon kon kon that that been that kon ko rañu fanga boy But man, man, man option What I'm trying to say is we are just showing to you. No, but it's for, for, for the whole country, Huh. Ah. This is affecting the economy of the Gambia. Yes, we know. So automatically, if if, if no, ah. let's let's come out with a solution, rapidly. It's just now, right now, I'm from a bank. Ah. Even a single even a single customer is not inside the bank because of the, there's no cash flow in this country. So let, let them understand. Co business community has to be respected.

nkolo for nali mbe gonde jan sa obe ko gambia affect la aba affect la nyaay of course imagine this, this how the system is going on manyana lola woto wala intel fon affect non narra ko de al ko motoli fon ko bari ko mi varanda varanda okay sai ah, sai you anyway ana for for for interest of the media ah, for the interest for the, for the interest of the media ah. that's what that's what I'm mekatala mekatala so this is not about yes. coming from this for the for the for the for the saka no no no na dugal magas na dugal mu tek place déedéet amul baalal ma tëjal sa place ñu def kii la ñoo da nga dama war a expliquer dama war a expliquer Thank you. Man, let him go. God, Wow. Kanga faga jamin fry filen tri mudo traga biti ko kono. Tri ek suaka la biti ko rasulan mare am yamu tela sain ten filen fekkanaa gaa sama station ako mu nekk comme ni lañ ko waxee rek mu génn ci bikaan bi ko si biir la nekk waaye mu ne déedéet du ko waaye ñu ngi ne léegi ñu ngi ko dugal si pick-up bi si station bi léegi waaw yàlla 운동을 그런데 오므틀로와 플랄데 바파 마틀로 파키타나 라이트나 프라야 야 바본데 간슬로 간 폴카스 머스레스 노다 파나 이게 메타 폴린 그데 워스게 가 머스야가 건문 랭고 하다 케다 문이 데 카데 so ñu ko génne si yoon bi fu mu nekk nii ñu ko yóbbu si station bi Thank you. समजा होते बघा म्हणजे आम्ही फिरून देणार आवडते समाजाच्या saintenga fulanteni kotuluwa fulani fale fulante basamba tan sai son kasamba tiko que cada fala mbula tiko bo nyun kono ya casa, más que son los te because ya en un momento baslo kan biwo que be a le te aras mo ka kom nen ko wahere ko poco también tienen ko kule ka jaya kati dibi tienen ko mon tamit fu nekka ni ko ni ni ko egal sitiko pour yóbbu ko si station bi parce que wax na la ñu génne seen bagage si yéen dafa mel ni ñoom ba léegi mënuñoo déggal lu mu so dah ñu beli ba léegi ñu si on a hand Eba wol fana je mobile wahid la la wote. Wol fana na fengol binde kan kono sa right now. Ngay wol fana na fengol binde kan kono sa la. Nga se meda ko na pudera baga sol de ne bare. Akam ta ko bige moy. Sa fengol de ibe wol fana arrest kan la right now. Comme nan len ko waxe rek ba legi ñi sa sa ba legi sa ko na len neka. Mo ko ba legi sa ko na len neka. Ci dina mobile shop ñom tamit ñu na pousse bi fu ñoo arrest len yobu len fu waaw because wax na ne ñu gën a si yoon bi waaye dafa mel ni ba léegi am na ñoo xamante ne mënuñoo gëm ne comme oppression bu gay nekkat def ni comme dëgg la so loolu la gay nekk woon gay ñëwoon nañ ko waaye ñu ngi ne ñëw dellu si waat uti woon gay ne comme si luñ nekk ne si dëgg la nekk nekku na si fi caaxaan lañ nekk comme na lañ ko nekk def gisee rek ñoom ñu ngi ñu ngi ni ñu ngi arrest ñooñu di yóbbu leen ñoom tamit génne leen fii ñu ngi waxaa police ak PIA yooyu yëpp waaw ñu ngi leen di jël jël nañ kenn fu mu nekk nii kooku ñu ñu ngi leen di ko yóbbu si biir pick-up bi dafa mel ni moom tamit arrest nañ ko dafa mel ni moom tamit arrest nañ ko akamta ah, ko yo fana a ma dingol go fana felti ba fana bulan ne kam pick-up ko e ka sinde ya fana arrest la because ya fana tribal lo kabara ni moy hansa so ba fana sama kan ngay bo fana sama kambe do fana ferenti yo fana nakina kam tamen ke gollo la tamen ke mo kilin fantire nyaba mo fulay mi be bonde be ka kilin ko ne be be aras kam ke sama sai e ferenti be ferenti ka jibu ko bo ko Thank do fana fe do fana samba ka nyaa do fana de o bi ka kilo ka kam te mo sabe akam te mo sabe be bande bi ka ni kilo ni ko dem na ci ci gol na ñetti nit ci nekk ne ñu la dugg ci ci copé di lañ yow ñu ba dugg ci ci gol lay togal nañ ko ci suuf ñu ko mu tok ci suuf pour yow ko ci station dañ ko arrest mom tamit ñum tamit ci benn bité ci la gay nekk ñetta yu gay arrest yoo fana felen kay min fana ta yoo fana arrest na kay yoo fana felen min fana arrest na bit kay yoo fana kono yoo fana naati na ne ifele ka fana sindi piko bo kono ifele ka fa fana jibi na mboka comme ñoom nañ ko waxee rek ba léegi si rako naa leen nekk ñu ngi ni téye nañ kenn tamit kooku tam jëm nañ ko si beneen bitik dugal ko si biir pick-up bi léegi mu ngi ni toog na ñun battery ma foko kom like mutu fo me fal men dije bare kana le motor pak mo be kala jale motor pak ande ka pak wonde bitika wonde bitika bu ndal to anin sulo kam mo ko dije ne la faka finti be kala be finti la nyami so finti bo wala la fonko number plate sul tay ba bonde ka sai me ya bonde ka ya tara stes no tay tay la motor number plate tay blokon ibare kala kala lu wala ka comme nan lañ ko waxee woon rek moto yi nga xamante ne day jël seen ko ku leen moom te ba tey kenn du xam ne kan moo leen paak foofu noonu suñu waxee loolu waxuñ na like moto bi dafa paaral boppam foofu noonu waaye comme am na ñoo xam ñoo dee paak seen moto yi te kenn du dee xam fan gaay dugal di ko paak si bitigi jàmbur wala si kaw yoon yi ñeneen moto yi suñu waree romb duñ dee xam sax naka la dee def de moo nekk dañ dee génne sa gaay seen number plate si yóbbu ko si station yow mi soo pare yow mi nekk borom moto bi soo pare nga dem si station bi nga lee ko foofu noonu nga kaas ko foofu noonu ñu teg la lu waa si kaw loolu noonu waaw ba léegi si biir Serekunda la nekk boori biir Kama garage Undangan film berkama garas, eh. Taman-taman mentah film film berkama garas. gara soto jen kal nyaay sulo njila fon ri nyaami wo tay mo ni ata buka sulo fon so ba tambila nyaam bar bi al fon nyaaka jala bi sulo kamba fon ri nyaami gara so mutol be pus ko te man gara so nyimbo je bar mutol pus ko mala ke pus ko to put silo fon sa mo sa tamit la mi ko iba sirin pus so ko fon sa sulo se ba comme noonu lañ ko waxee rek ñu ngi ne ba léegi suñu si biir waaw boori biir Kamaga biir Kamaga garage lañ nekk comme si garage bi foofu noonu gis nga foofu noonu nu mu mel ndax mu ngi mu ngi leer yaa ngi soo taxawee si Johnson Black Market bi fële yaa ngi gis biir Kamaga garage fu nekk a ngi leer because time boobu noonu nekku na dañ waaye dañ jël garage yi si gannaaw su ko defee ñeneen moto itam ñu am yoon fu ñoo jaaree nit itam nit yi am yoon si kaw puus puus ñoom tam ñu so gis ngeen foofu la nekk ni ñu ngi dox ba si kanam noonu uh, Thank you very much. Today's operation is a very special operation because we understand that it's part of our plans, but we have been informed that recently the places that we've already done, cleared, um, people are back to those places. And not only that, some of the people are given chance to to be able to remove their places, and we're going back to see whether they actually done that or not. Unfortunately, when we started today, we started from um, Serakunda Junction going to um, around Kikistown, uh, the Sanser or the petrol station, oil End. Uh, yes, the cooperation is, is, very good, but I mean, some people are very stubborn, you know, uh, trying to, to more or less bring proof as to why they have not actually moved. But like we said, no stone will be left unturned. This is uh, a task given to us, responsible to ensure that all illegally structured all illegal encroachment on the road are being removed. And that is all what we are going to do. We are not going to compromise with anybody, with, with any person. And uh, we are asking everybody to please comply. The compliance as far as I can say, I mean, what I feel is, is very high. It's more than 60 to 80 percent. That's that's my own perception of it. We have few people who actually are still adamant and still feel maybe we are making a joke. But today, what is so special about today's operation is that we are arresting people. Anybody is anybody found around those area where we've already declared will be arrested. We are arresting them and we'll take them to the stations, and from there the command will decide whether to proceed with them on on prosecution or not. But at the moment, um, everything is on the table. There is possibility for prosecution and, uh, and, and any other thing that, as far as the law is concerned. Any questions? There is nothing, I think. All right, thank you the, only thing he had access to remove is something. The signboard. The signboard is not removed. And we to Are you the, the, the, the, the head here? Where's the head? Call the head. And then let him come right now. I give you only three minutes. Please, ma'am. Three minutes. Yes. We do know how far she is. I don't know. We need to And then secondly, secondly, come discount. Yes. We already spoke to him about it, and I had an incident. We parked at the back, the back here. I parked my car at the back, and someone broke into my car last week. I had to go and buy a new uh, screen for my uh, window. So we all came back here because there is no, no security no, at the back no, no, no. But he came, he looked at the structure, and he told us how we are structured. This is a health facility. if you say a patient cannot park, how would the patient come into the place? How it? Anyways, Ma, you cannot be everywhere. siko galle koy kana yelefon bonde barema bonde so ko lafta kela hebnil kawla ares wala ma heɓ nin kata so min mbanoma na kawla kata ñan so lafta katala ares saka sain ɗen pour ka samma alano fana jiwe You can't arrest her like that. this is what she said. Did, did she commit anything? Did she do something? You want to know why? You want to know why? You want to know why she's going to be arrested? Why? Yes. Hey, you are. Then I'm

commission and all that. So what we, I told them, I found something. No, sir, no, they are insulting. Can you I hear you. I hear you saying what you are saying. Uh, what you are saying. When somebody says something and he doesn't know the resolution of the you can you can correct him. Then, uh, at least we are doing that. Understand? Yeah. At least we are doing that. Sometimes it's difficult to do that. Everybody is agitated. Yes. Now, now, then it's very now it's wrong. Tell him it's so. I think you understand. You understand. So thank you. Thank you. Minakila suwata amil kasi police station lo dalaje because lo occupy. So guy bo wala yola arrest right now. So bo fanan bela bagas so fende ba bonde ke ba sama kan station to. Comme nan lañ ko waxee rek ñu ngi ne ba léegi sa rakum naa leen nekka. waaw dëgg la seen eh, seen opération bi man su ma gisee you know it's something normal to me waaye one thing la woon bu bu nga ñëwee man dafa beta because amoon ben notice you know about this operation wax dëgg na gaay gaay gan ko ak gan ko announce si radio bi and stuff stuff like that xam nga léegi radio bi léegi xam nga rek <clears throat> bu ñëkal bu ñëkal bi la wala di social media you know so i was not aware of the operation but mo gisee nak it's something it's no it's a, it's a very good job to me mo gisuma si benn problème so ñëw nañ fii wax ma about everything ma ko yaa problem, you can just go ahead so that's it kon li mom kay xam nga rek ñoo jappalante rek ak understanding bi I think that's all yeah ndax buñ ko daanalee rek nekkul li nga xam affect na la ak nga xamante ñoy ñuy jënd ci fii yeah of course of course why not because ñu bari customer bari ñu ngi ñu gis gis bi yeb ngi tilim you know dos bi xam nga té fi restaurant la té nga gisee fi tam restaurant tam bi nga gisee eh right now nga right now si tourist season bi right now so nga gis né tuba bi bari su ñëwé dara want to inside dem bu ko dem dañ bu ko tok outside pour am view outside so what's happening understand because getting what I, getting one thing that getting what I gëstu about this restaurant owners like outside we it's very important tamit gars get hold like ñu mën a dimbale space outside you know because like gis ne tourist yu bëri they leen they prefer going outside you know to have a view But du ñu bëgg a dugg si biir wala su even they they must am not tourist fi ñëwoon sax gars dañ toogoon si biti dañ créé gars some chairs gars get not to si biti pour xam what's going on But they come here for a tourist you know lan moo waral lolu comme borom kër yi ñuy sampo dañuy sampo li nga xamantene moy seen place ñu pousse tudd ci ko tali way dañuy sampo fi nga xamne fofu lañ mom après tam nañ ñew dem occupy li nga xamne mom moy yoon bi foog lolu tamit dañuy jappalé nga xamne ñoy dem dëkk bi dëkk bi mun a yaatu yeah lu nga digal because nga gis ne fi especially around Serekunda bi fini. nii ñu bëri dindee teg seen kantin bi ci bi li nga xamante lolu is not correct to be frank yeah is not correct way nga gis ne fi mon suma nga gis building bi fii doore ko doore from Westfield ci ba garage here, is the only building blimp but you can have a proper car parking. Because over the whole building, mutai, mutai pang park, you know, vertically. Understand? So mutat buta buna tam hold hot Dua ga gaya ni wah bu mutai park fit linga mate tam lu Luka go halal buba. go over the on your set over there, you know, this mutai mutai parking. Dia pange parking normal. Duga building building ko move sibir. Punu munam proper parking outside. So from Westfield to Tibagaras, pirek mu am lolou Yeah ñu gis na biir building bi nekk na loo xam ne lu rëy la boo foofee nii yëpp si benn building bi la waaye nag moto yi mënuñoo koof noonu dugg ci li nga xamante ne mooy biir kër gi ni mun a parcours seen moto yi su ko defee nit ñi mën a am yoon pour jàll waaye nga gisee kër bi tamit there are tenants upstairs ñi nga xamante they also have their own cars they park there so everyone cannot park their car inside so that's why we that's why the time the, the, the transport that we don't build building, the move building inside so that you can have proper car park outside yeah la mooy sax. man liggéey moom kay to be frank I'm very happy about the operation. yeah what is about development so sometimes because gis ne man si man lu nga lu nga yaxafi you know dafa bëri waaye da nga gis ne gis naa ñu nga xamante ne full kër dañ daanee full kër because of gaa ngi expand road so yow comme ne ngi daanee full kër ñu ngi noppi yow su lu dexee di ndowi I complain yeah because gis ne ko xam ne full kër nga ko so suñu daanee ay yu ndaw yi moom you just have to take it at good faith you know and it's development su ñëw moom kay you know foog mu affect ñeneen ñi moom c'est mus yeah waaw si man ñum yaaxanu na ngay muñ rek yeah ñëpp xam ne no this about you know nation building so we all have to build it together yeah so development su ñëw moom kay you know dañ ko war a consider moom kay foog am na ñu muy affect loolu c'est mus moom xam nga te ñi nga ñaan yàlla tamit you know ñi nga xamante ne daf affect bu baax ñi nga xam ne ñi nga kantin loolu la ngay the government tried, either of KMC, tell guy a place whereby they can they can go there, you know. I'm not. Couldn't come and form talk, you a Jai, because we want hot tight up. The man said me hot Man, Mohamed Kamara. Yeah. Brother, yeah. Thank you. Swear about your guy. Get

um, hand sign kan siya. So, um, saan siya mag-aras na ako na alas di ako ng tali na ako ng samara. Kala niya, mapagyago na pick up ko na. Kami Am na, yung nibot sa siya mag-aras. Yung jil kaya na sabot na. Iyobo ko. Yung kahit na mga nisibit pick up. Yung ko niya iyobo. Mga, yeah. nataalde jam foti pagaras jon na nataw jam pagaras na bite kado ɗo fananto me alon koye kaya koye après alon sijilol nem bo fonkol be bonde sulo kam bara man son ka bonde say nata wala kam yara ata sulo tan comme nin len ko waxe won rek ñu ni le meka am na jigéen si en way ngi so si mom la ñew ni right na di ko ñew arrest pour yobbu ko mom tamit ñu ngi jël baga dugal ko ci biir suñ paree waaw seen place yi nekk fii nii yëpp ñu dugg wax nañ leen woon As far as you are trying to do something, kan please, please. As far as ñoom ñu ngay def something kantin yu nekk fii pour ñu move. waaw yéen ngeen mën a dugg si biir. What I'm trying to tell you is, try to redouble your efforts. ah ngeen ngeen def ko as soon as possible. Why second consortium want them can book with let them pull well, they done, the work is done, so they can get it. You understand? But we give ample times. It's more than seven days now. That's one. You people should do something else, of course. I just spoke with Cham and then give me your assurance. <laughs> Please try to fulfill your promise. What we are doing is the interest of the nation.

kon nag ñun ñi nga xamante ni ñun ñu lamdaay lañ duñu bàyyi what we are trying to say please jàppale leen ngeen jàppale seen boppa ñun ñëpp ñu defar Gambia loolu rek lañ bëgg a dégg nga please waxal ak Cham he's board member so he's a councillor yes, he's a and then I just spoke with the manager here the manager is a friend of mine I just spoke with him I called him and then I warned him please talk to them also. As far as you are a counselor also, go back to the community, sensitize them, tell them what we are doing. You understand? You have a responsibility. You understand? Please sensitize your people. Yeah, I'm always on that, and this okay. has been advice I always give. So currently, we have a situation in hand even uh, yesterday, was it on Saturday, I went with a team to assess our markets within the municipality to see how we can accommodate some of these street vendors and the chaos on the street, which were demolished. And because they are into business and they cannot stop business, uh, they have to look for somewhere to transfer their business. How can we create spaces in the markets? So we went to Serakunda, we identified certain places. Today I have meeting with the CEO the director of finance, the director of admin, planning, and so on, early morning. So the team will go back to Serekunda tomorrow in the morning by 9 o'clock to start demolishing those areas to clear them so that we can accommodate some of them. And also we have markets that are open. Serekunda and Bakote Latrikunda are the only markets that are congested. But we have markets all over. 18 markets in KM. 18. And all those markets are not utilized. So, here is unoccupied. Eh, eh, no. Space that is. You see, uh, uh, uh, it, it is just not organized. It's not well managed. Otherwise, everyone, all these canteens are fit inside if it is well arranged. So, but as a board member, I blame myself because I've seen it happening and I don't make a stop to it to be honest. So I will not believe the money alone. I am part of this. So, but we will work together to make sure there is improvement in the market. And I will assure you that I will talk to Cham immediately from this session to see how best to remove these things to avoid any further confrontation. You'll be very glad. Hmm. Let's go to the other side. Well, well, I'm So my point is, hmm, the citizens who were selling at the road, hmm, and now they are told not to do so, and they're sitting at home. Like I know some of them are there. When it's when they sell, they have something to earn and leave. Some of us are there. Is when we sell, we'll have to pay for rent and feed our kids. So we are asking the government if they could give us this answer, we'll be very pleased with them. The question is, what will the government do as the solution for the citizens who are sitting at home, not working, and they will be sitting there crying because I will not say it does not goes to me, but the way I see it on social media, I see humans crying. It makes me suffer inside. Because when I see my fellow women crying, some of us are there, is when we sell at the market, we'll have money to feed our kids. And it's only at that time when we feed our kids, we'll feel happy inside our hearts. And now this question goes to the government if they can give us the answer. What will they do for us, the citizens, when they tell us to sit at home? In two years later, when they construct the roads, what will they do for us? That's the question I have. Thank you.

mfentuja because yafa mile no mpuke bo siloka wafirla ni mingo pususo akamta ko hana sainga mo moiroke imon sonka wa siloka sai ngata wala kama nata la ni mboro bitaka sai ye bain le yemu te atas ikante sai ke lupi ko ko na puke sama comme nun len ko waxe rek mbokay ñu ngi ni ci biir sura ko na ñu ñu nga xam ne ñoo patante suuf yi nga xam si yoon bi ñun ñu gën a bi soo si loolu la loolu la ñooñu la gars yi ñoo jël si mu nekk ni ñun arrest nañ la ñu la ñu ngi dugal gars yi si biir pick-up bi di leen yóbbaale keneen ki keneen ki daw na bàyyi na fi bagaasam bi bagaasam mu ngi ni jot si suuf doo ñëw fanam pot fala yàlla bagaas sol ci juróomatin duuma ja bagaas sol wala kirantel baraak ya a kamta ya fana mutale saykata ya sambala aɗum gati ko bokono biko sa bokkol bara ya mutale awtuɗo afan batti bokono sa ya samba ye muta e botatale bara ye mutale ke ɗum detti ka fo ifente ni walla ba ñoo bulo kono ten sainten ba ifente ba piko foo kono nebi taaka comme nañ lañ ko waxee rek na ñoo xamante ne ñu ngi doon daw bugaate ca waaye ñu ngi ñu ngi la woon gaay ne comme mënuñoo rëcca mënuñoo rëcca xam nekan bi daf dañ téye gaay arrêté na la ñoom ñëpp dañ la biite téye na leen dugal leen si biir moto bi léegi ñu ngi ni nag ñu ngi àndaa gaay si biir si station bi Serekunda police la nekk di yóbbu gaay fa mu nekk ne ñu ngi ne yaa gaay tugee la hansain hansain bakanda manji fulo mon min mol bakanda fen to sura kunda mak se kono sita sita ba ko tama fola ye mol min arase ni be samaka ne ba nyo blo kono be samma ne ba nyo blo kono fen ti ba ba piko ko kono ye sa pas lo kana gaid min boro bare ya gaid mo dala ini boro ye ben le ye mo ta sai be samaka nyo res ke samaka fen de ba fakin fon ko kono et kono Wala fana mbo fe la huta black mate ba de gaid mo ta sai fen de ka tai gaid ndi piko ko kono comme non lañ ko waxé rek ñu ngi arrest ñi xamantani ñu dawon duga ci bir black market ñoy la gay dem jël arrest nañ leen ñu ngi jël gaay si biir pick up bi fu nekk ne légui nañ leen dem ñu la gaay leen faleen tv bi ñu Hey, Ali Escort Jan, charge office. Noonu lañ ko waxee rek léegi fu nekk ne àgg na Serekunda àgg na Serekunda police ba pare léegi ñu ngi ni nag ñu ngi ñu ngi leen a yóbbu ñu ngi leen a yóbbu si biir ñu ngi ne arrêté nañ kenn tamit kooku tamit ñu ngi ne ñu ngi ko dugal si moto fu mu nekk ñu ngi ne boore Brikama garage leen nekk foofu lañ jógee si marché bi si boore bi ñu ngi ne boore Brikama di ñooy am ñooy adres ñene ni tamit mi frente mbota na sita bama fo na sain frente ma bir kama gara kunta na kay to yang ko teke ene la baga sol be bas loka sain atla ye iya e ko mole mo tan na nge jibe mo tan la nge tra jam la baga sol ma bondi sain ye mo tay adres e frente ke no mo to ko ne ke sama sain Ah, I feel like they're arrest now. I feel like now I'm doing the pick up right now. You're gonna arrest now. If I'm going to multi I'm going to muscle a color, but that's all going to be so. Yeah, I'm going to right now. Yeah, yeah. yow yaa maa jël rek comme moom tamit fu mu nekk nii right now téye nañ ko ñu ne dugal ko si pick up bi ne moom tamit dañ koy arrest nañ ko rey Gofana frente, gofana mudolti mi anche sloke ya fe boje man boje sayo do fana mudolti gofana do kapito gofana right now. Kata gofana sambale amna ko xamante ko ko tamit buddi buñ ko wéna mu génne baga samé ci yam nak ko génné légui mu tan fu nekk ñu ngi né ko ñu ko doga ci top bi. Ku yoddu sa xat te quality jess na ñoo yor seen cumbukaay. Tur day uyu borom jas na piir soo ko bëggee